ñaawteef la ñu nemmeeku ca parcelle unité 24 ginnaaw borom ñaari tur yi ñu fekkoon ci jumaawu CRAC ñu def naka sudul noonu jamono juñ toll ni sax ñu nekk ci ay loxoy yoon lu ñu mel lañ daal di rek nemmeekuwaat foofu ca parcelle ginnaaw nag àjjuma bi ñu génn borom ñaari tur yi nag ñoo nekkoon ca diwaan boobule rek doon fa def fa li nga xamante ni mooy sabar ca naka noonu sax tey jii la ñu xëy daal di koy feseel équipe Sunugal 24 wàcc ci terrain bi ci diwaan boobule di parcelle unité 24 waaye nag ba ñu fa quelques réactions muy ndaw yi dëkk boobule yéen fa jot a taataan sax am na ci ko ciy xamle ni rek mbir mi ma nga daal di xew ci àjjuma ci naka noonu sax ay boroom ñaari tur ñoo fi doon def rek li nga xamante ni mooy sabar moo ngay xamle ni sax ñi ci ëpp dëkk ñu ci diwaan boobule waaye nag ña organiser sabar gi foofu lañ dëkk ma ngay wax ni sax ay locataire lañ yàgguñu fa te it ñoom ak seen ay waajur ñoo fa dëkkandoo ca naka noonu ñun nag daan nañu wàcc ci dëkk boobule dugg ci ñenn ci li nga xamante ni ñooy yeewoo foofule ca naka noonu ci lañ daal di jëlee benn oustaz boo xamante nii rek ci jumaa ji lay jàngale fa la yor daaraam moom nag taxtaan nañ ay kàddoom ba ñu fa noppee nag ñu demaat ci beneen waaye moom la sax nekk ab chrétien waaye moom bi le mu gën cee indi ay leeral ndax moom bi le lépp fa la ko fekk dañuy daal di rek tataan say ay kàddu am internet Sunugal 24 ngeen déglu mbir moom lee naka la demee. waaw euh, loolu dinaa ci sawar torop pour si waat ci loolu man lii mosuma gëm ni am na góor jigéen ci dëkk bi keroog de laay doog a gëm loolu euh, dama toog fii sama palaasu liggéeykaay la ba pare dama dëkk fii nii nekk fi responsable fii ci koñ bi euh, ma toog rek tourné dem ci butik bi fii ci ginnaaw ngoon ay booru 19 heures vers ma gis Euh, balaa boobu sax ma gisoon ay chaise ñu doon wàccee ay chaise di rangale euh, après euh, bi ma demee ci boutique bi ma gis ay taxi di wàccee ay xale yu góor ñu am ma gis ñu am nu ñu soloo ñuy sol ay robe gis naa ku sol benn rob bu bu defe naa rouge la am na rouge beneen bi xam nga jaune quelque chose comme ça wàcc cip cip cip ci kër gi bi ñu bi ma dendal. ci waaw mais bi ñu duggee noonu bon j'avais pas fait attention parce que je me disais que ñii est du ñu ay ay jigéen sax mais wóoruma woon quoi alors bi ma delluwaate fii yàggul ma dégg ñuy def musique. ma toogaat lu yàgg génnaat dem ci boutique bi parce que d'habitude bu amee activité dans ce quartier ils ont tendance à m'appeler parce que fii la majorité la majorité c'est des musulmans ñun mi nekk ay chrétiens yi fii bariwuñu mm-hmm. donc très souvent bu amee xew dañuy ñëw ñu wax ma pour ma yëg ko pour ma dem bokk parce que Sénégal moo demee noonu ñun yëpp benn lañu. Mm-hmm. waaw xam nga fee naka la demee mënuma la ko wax ndax bokkuma ci. Mm-hmm. organisé wu ma xaw ma ñu organisé laajuñu ma tàgguwuñu ma euh, ni nit ñi déggee nag laa déggee vendredi wàcc naa romb di dem gis ay barrière gis ay sées ma laajte ñu ne ma fii dafay am lu fi xew mais booba it foofu laa si yem le lendemain bi ma xëyee comme sama école jàkka bi ak koñ bi nga xam ne fa la ñuy installé woon programme bi ak programme bu mante doon sorewul ma gis sées yi ñu toj ma ne waaw lan moo xew fii démb ñu ne ma tànnabéer góor jigéen moo fi amoon information bi noonu laa ko jotee tànnabéer góor jigéen moo fi amoon waaw loolu muy cosaan parce que toujours ñaar rek moo fi nekk li baax ak li bon kii defar ak kii yàq kii yàq kay fu mu yaakaar ne fa lay mbaax gën a jege foofu lay dem pour dalee fa yàq loolu moom yéemewul loolu yéemewul parce que àdduna ñaar rek moo mën a am góor jigéen yàgg na fi mbon góor jigéen yàgg na fi yàlla si boppam yónni na yonant ngir góor jigéen mais góor jigéen ñooñu bañ leen di alag yonant bi nga xam ne moom la yàlla yónnee woon ndeke jabaram si réseau góor jigéen ñi la bokk yonent bi yàlla yónni jabaram si réseau góor jigéen ñi la bokk xanaa tey xamoo ne yu bon yi fi ne ñi si bokk te xamuñ leen bu ñu leen xamoon sax dañoo yenu suñu loxo de yuuxu parce que tey ñi ci xam sax bariwuñ mais ñu baree bari bul foog ne koo gis mu niru ko baax rek ko baax la mm-hmm. waaye buy bul gisit koo gis rek mu xaw lay niru kii nga tuumaal ko lu bon mm-hmm. mais góor jigéen yàgg na fi mm-hmm. ñoom nag seen àtte ba leen yàlla de àtte da leen suul te deexuñ malaaka bi la yebal mu ëlbati suuf si li faree xoon si suuf faree kaw kon àtte góor jigéen bu ñu ko doon wax mooy suul leen te deexuñ waaw Ah, ñu gis ko ni comme ni nga ko waxee sànq eh, góor jigéen jamono ju ñu toll nii kuréel yu bari jóg nañ ngir xeex ko ñu gën cee raam ñeer yi nga xamante ne mooy ànd sàmm jikko yi ñoom sax demoon nañu daal di def eh, bëggoon eh, lu ñu voté loi bi ci assemblée nationale ñu ne ñu ngir rek ñu daal di mën a criminaliser li nga xamante ni mooy góor jigéen waaye loolee antuwut ndax ki nga xamante ni rek ñooy waa assemblée nee nañ loi bi mi ngi fi ndax acte contre nature góor jigéen ci la bokk waaye ñoom loolu dalut seen xel ñoom lu ñuy sàqu mooy ñu daal di rek képp koo xamante ni jàpp nañ na ci mbirum góor jigéen ñu sanctionné la yow euh, mbir moom la. jikko yi kenn sàmmut ko ku lislaam jikko yi amut benn groupe bu jóg ne ñuy sàmm sàmm jikko yi yàlla bi mu bëggee sàmm jikko yi la yónni euh, indi lislaam indi yonant yi fi mu ne nii sàmmkati jikko yi pour mu mel na war a mel mooy. Seyduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax man conférence yi may def yëpp ren maa ngi koy def si tarbiyatul awlaadi fil islam yar si lislaam dëppook lislaam rek moo mën a sàmm jikko yi beneen bi si des assemblée jarut ñu fay yóbbu àtteeb l'islam ndax du ñoom ñoo ñu koy dogalal man boo demoon si sama wax dama wax ne ñun jullit a ñu jiite waaye yéefee dañu àtte parce que luwaa yi du luwaa yi l'islam luwaa yi nim nangoo jullit nangoo war seen foo xam ne carte si li gën a araam la bokk société la fi LONASE carte la nanga teg li may wax de société la fi njaalu fi mu ne nii dafay am ñu ñu jox carte ba ñu sañ a dem njaalu ji fii wiyoon lañ bañ waaye ba ñuy njaalu suñ loi yi jullit a ñuy jiite mais yéeféer a ñuy atte atte yi du atte l'islam moo tax soxla si du fajoo foofu si jamono Ablaye wàdd loo xam ne yàlla moo ko wax si alquran Sénégal daje nañ seen député yi dajee dama koy rappeler fu ne seen député yi dajee ne lii lii la yàlla wax waaye Sénégal d'accord uñ si bu ñuy watee éliminer peine de mort ak loo mën a def ñu ne dee ñu taxaw ne droit de l'homme l'homme bi sañ rey te kenn sañut koy rey boobu atte atte l'islam la suñu ensemble bi du àtte l'islam foofu lay moo fa nekk soo doon présentation si euh, euh, présidentielle yi su ñëwoon am groupe bu jóg ne ñoom suñ leen wateelee suñ gañee lislaam ñu ne la doo bokk man dama doon wax ne réew mi jullit bu am fu la sax doo wate présidentielle parce que lamb juñ ne sa mbër du fi bëri loo fay wuti te li mbëru l'islam du bëri yëf du fajoo ensemble muk jikko yi nag l'islam rek koy sàmm du nit lislaam nit moomut ko yàlla moo ko moom musulman day nekk fii katolik ainsi de suite dañuy demalante suñu mm-hmm. biir te demalante bi rafet na trop mm-hmm. ma ne waaw mais cette fois pourquoi mu am benn affaire ci quartier bi kenn wow ma ma ne xaar ma dem leerlu ji noonu laa génnee tourné juste encore ma gis keneen mu wàcc ci taxi bi muy dugg kooku nag laa xàmmee ke kii kii moom du jigéen góor a ngi nii sama kanam yeeloom yaa ngi nii ma gis ñu dugg affaire boobu jaaxal ma torop ma xam ne que fii si koñ bi kon fii am na lu fi war a xew musique baa ngi ko commencé man nag ma tourné ndànk dem sama kër parce que jour boobu laa pare pare pare man laa xam ne que vraiment am na góor jigéen ci dëkk bi parce que ni ma ko gisee vraiment mënatuma sama yaram dafa dee si saas góor mu solu comme jigéen di dox doxu jigéen def sa posé ay wey. ci li ñuy def. ah man man mun moo xam loolu parce que man loolu daf ma jaaxal man maa ngi doo gis lu mel noonu. Mm-hmm. mais man li ma bëgg mooy lii man munu ma ko nangu suma koñ. Mm-hmm. munu ma ko nangu en tant que kilifa nekk fi yor fi famille yor fi njaboot nekk fii si koñ bi dëkk fi unité 24 loolu mun ma ko cautionner en aucun d'accord bi affaire bi amee après jeunesse su koñ bi naka la def naka la ñu réagir bon dama dégg parce que man ñëwuma. Mhm. dama dégg rek la lendemain. Mhm. nii am jeunes yi dañu jéeg jógoon interposé wu ci affaire boobu. Mhm. ma gis chaise yi yëpp toj fii. plus de deux cent trois cent chaises lañu euh, la la xaw ma ñan ñoo ko toj. xaw ma ndax dañu doon xeex xaw ma ci lu ñu nekkee waaye di il paraît que les jeunes du quartier se sont interposés. et sa je ne savais pas je ne sais pas parce que je n'étais pas présent. mun ma la nee dañu xeex wala dañu dóorante wala góor jigéen yi ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo lañ doon xeexal. mais man mii teg naa bët jigéen bu solu ak ah, góor bu solu comme jigéen loolu teg naa si bët man. waaw ñi ma njëkkoon a gis wóoruma woon parce que je me disais que non ñii ay jigéen lañu. mais ki ma mujjee gis góor bu solu comme jigéen la boobu man maa ci teg sama gët. waaw loolu nag mu metti ma loolu loolu loolu ba si kanam yàlla li nga xamante ne vraiment lii day yàq suñuy doom yi suma ma sañoon loolu mu bañ fi nekk te dégg naa ba tey euh, ñi defoon sa sabar boobu noonu ñi ko organiser tànd beer boobu il paraît que seen parents ñu ngi fii ba léegi si kaw ñu ngi fay dëkk ba léegi ah man ñoom ñoom ñii bi ñu fi dëkkee yàgguñu parce que ñoom bi ñu fi dëkkee biñ bu dee fii la ñu yàgg dëkk ñun ñu xam leen mm-hmm. waa parce que la maison la dañuy louer ay këru locataire la mm-hmm. léegi ñoom ba ñu ñëwee loué foofu kenn bàyyi si xel ñu keroog lañ doog a rendre compte que y a des gens qui habitent ñi nga xam ne bokkuñu ay jëfin ak ñun mm-hmm. man ci laa doog a rendre loolu compte mm-hmm. mais loolu man loolu noonu mun ma ko cautionner mm-hmm. te loolu noonu tey oustaz bi ngeen waxtaanal ni sànq maa moom ñoo fiy waxtaan tout le ma demoon waxtaan ak moom ñu tourné ma tourné fii demandé ñu ne ma am na parent yu des foofu man mii sama jëmmu bopp dinaa bu ma paree feeg yéen damay yëg fa pour xam est-ce qu'en réalité seen parents ñoom ñu ngi fa bu ñu fa nekk man damay dem léegi-léegi police wax leen. Mhm. parce que nous on doit collaborer avec les hommes de les de l'ordre mhm. Mhm. Hmm? pour au moins ñuy ñuy mën a suñu kaaraange. suñu lépp parce que lii bokkul ci suñu diine. muy catholique muy musulman li bokkul ci suñu jëfin. lii du affaire u Sénégal yi lii du suñu affaire ñun muus ñu xam lii ci Sénégal boo demandé depuis bi Sénégal sosoo ba léegi kilifa yi fi yàgg a nekk dañ la ne ñun xamuñu lii Sénégal du diine katolik du diine musulman yëfër sax ci boppam sax doxalul lii lii beneen xeet la léegi te lii nag kenn waruñu ko imposer ci dëkk te warul nekk jiitu réew bi dem na sax ba ne loolu mënu fi nekk kon mënu fi nekk waaw bon xam nga loolu beneen niveau la mm-hmm. loolu beneen niveau la pour voter euh, une loi pouvant criminaliser euh, euh l'homosexualité ici au Sénégal loolu beneen affaire la mm-hmm. les gens sont d'accord à ce que cette loi soit votée mm-hmm. ñii d'accord nañ ko man mii man moom laa d'accord moom laa bëgg tey moom laa bëgg suba bu mënee am na am mais euh, loi toujours dafa am nu koy encadrer nañ ko encadrer teg ko de telle sorte que euh, du ñu tooñ kenn parce que ne diw góor jigéen la ngeen tëb dem dóor ko tam loolu beneen affaire la mm-hmm. dañu dafa am nu ko war a encadrer nañu xool loi bi bu baax saytu ko teg ko de telle enseigne que buy dóor dee dóor ci ki nga xam ne moom mooy góor jigéen bi carrément mm-hmm. donc defe naa ni euh, les quatre vingt dix neuf pour cent des sénégalais d' accord nañ tey pour que loi boobu ñu criminaliser ko. waaw société bi léegi nit ñi bëggatu ñuy dund si jikko si am-am lañ bëgg a dund am-am yi fi mu ne moo tax xel yi amatul euh, xelaatatuñ la am njëriñ ñu ne si xol yi itam gëmatuñ la leen di jëriñ mais nu ñu amee rek. tey da ngay gis parent boo xam ne doomam joo xam ne nekkul si dara bu ko mayee 20000 muy jël bu ko mayee 30000 muy jël te du jéem a gëstu fu mu koy jëlee ko ñoom itam am nañ si am nañ si part de responsabilité waaye xale yi itam dafa am ñu ñuy tuddee xale te duñu xale. waaw parce que itam yow boo demee bu bëgg dee sol loo xam ne kii liggéey sax amu ko ah nit ñi fi mu ne defatuñ concurrence si jikko concurrence su am-am la su boobaa na comme nu ma amee baax na doo def baax na waaw fu ñu ne maa ngi koy wax léegi comme mbaax dafay gën a wàññeeku te mbaax ak mbon ñoo fi nekkoon kon mbon dafay gën a bari ci tous les côtés nag li war a amal pour xeex bi moom lañ dul nangu ndax fii nanguwuñ lislaam yar ñu nanguwuñ lislaam yor ñu nanguwuñ lislaam de ñu tële ñun ñoo teg fële li ñu waroon a defar yàlla ba mu defaree nit ñaar rek moo moo mën a defar nit mooy li ñuy wax diina lislaam yàlla moo xam nit tey fi mu ne nii am na yoo xam ne loolu la lislaam wax soo ko waxoon sax balaa ngoon jot général attaqué la ñu naan yaa ngi dal ci kaw nit te fekk yow waxoo yàlla moo wax bu ñu demee nag ba li yàlla wax ne noonu lañ war a def noonu lañ war a mel ñu wan ko gannaaw tey fi ne nii muy góor muy jigéen doomu jullit ñi ñëpp yar nañ leen senegal ñàkkuñu xam-xam de bu ñàkk a jëfee xam-xam moo ñu lor mais koo fi gis mu def lu naqari yàlla xam na ko du wax naa la ne duut góor jigéen rek a fi naqari yàlla gis nga lislaam njaalo borom dañ ko war a rey sàcc dañoo war a dagg eh, loxo borom dégg ki nga xam ne itam dafa naan sàngara te bugg a doon jullit dañ ko war a aaye su bañee même sàngara xoolal tey fi mu ne bañuñ fu ñu jaayee sàngara waaye amuñ kayit lañu wax naa la ne carte yi gën a araam la bokk te société la fi fii yi fi bon ah jamono bi ñuy tabax monument bi dama la waxoon si jamono boobu laay waxaat bi ñuy tabax monument bi euh, dama ne leen dëkk dëkk boo xam ne carte euh, am na fa kër njaalo am fa kër sàngara am fa kër su fa maa ñëwee am fu fanaan góor jigéen itam fi mu ne nii li ma dese maanaam yi si yi fi bon si lislaam te ne fi gàññe mais góor jigéen na si gën a tuuti li koy xeex moom la ñu nanguwul mooy dem si lislaam lislaam yëlifi ñu mais ay jullit lañ mais dañuy def lu Europe lislaam moo tax lislaamu léegi sax boo ko seetee si nit ñi yow doo xam lan mooy lislaam foog nga xam lislaam xam ne lii la lislaam ndax ndax li fi naqari lislaam fi mu ne jullit ñee koy def jullit ñee koy def bu la neexee ñu xuus si melokaan yi si col yi te boobaa mën naa nga ñàkk say mucc wala ma ma ñàkk say mucc fi mu ne bëri na ñoo xam ne nañuy solo muy góor muy jigéen te de ay jullit xam ne ne lislaam d'accord wuñ si te nit respect mu ngi njëkk a amee si comportement bi feeñ si diggante moog nit ñi am na ñoo xam ne bu ñu la gisee rek ni ñu la gisee automatiquement si lañ lay yabee wala ñu commencé la si jox respect kon nit image am sax dafa am solo mais léegi lan la boo boo solo sax bala ngay ko taa ñu ne la tey tubaabee nga kon yow tubaab bi moo la gën ba nga nangu ko ba yow buñ la ne tey tubaab nga sax si ngay doog a kontaan man damay jàngali si ay kër am na ñoo xam ne seen doom yi jàngal nañ leen ban mañ làkk tubaab bi te man mënuñ ñoom seen làkk bi ñoom ñu leen jur adduna bi dara du ko defeer lu dul la ko defeeroon démb tey fi ne yar amatut parce que ni ñu bare ay kër dañ daan def kër famille bi famille bi dajee nijaay nekk fi bàjjan nekk fi maam ne fi mais fi mu ne nii yéen xale yu jigéen ñi sax fi mu ne ku leen bëgg appartement rek appartement yow yaa fay nekk sa jëkkër sa doom nga xëy liggéey wala euh, sa sa sa jëkkër xëy liggéey sa doom kan la fi nekkal jànq bi jànq bi jurul jëndul ku jurul jëndul du yërëm mën na yor waaye mën ta yar xale boobu ëllëg amul lu muy mën a partagé ak société bi parce que yaruñ ko si lu muy mën a partagé ak société système éducation bi ñu jël léegi ak dundin bi ñu jël kenn ku ne ah beru nekk si sa ruq nekk si sa koñ yow kenn mais bu loolu day gën a bon rek waaye du gën a baax. sant ak ngërëm ñaan na la papa. waaye yéen itam sant ak ngërëm na leen. anu ñu yàlla boole dimbale. bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi